mooy man waxuma ak benn bàyyi ma waxumaak benn manquant waxumaak euh, euh, euh, kenn koo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla followers nga nit ñi laay waxal te yéen nit ñi alhamdulilah rabil alamin ba nga xam ne bu doon benn sax yéen a ngi may dégg dama déglu ngeen xam ne kii wax ak yéen Sénégal dong nga ko ñor boppam taxu ko jóg bu doon sama bopp moo ma tax a jóg kon demb ak barki demb ba journaliste yépp couché dem ànd ak Ousmane Sonko ma leen neexal ak tata galak, tatagal ak dinañ dig ay poste bu faloo ak ñii mu leen wéev ak di leen orange mo nekk dafa ay mi kenn xamul moom ak ñamu àndal pour contrôler presse bi contrôler sunu xel ak sunuy xalaat kon ba ba ànd ak moom yombee laa ànd laa waroon a ànd ak moom te benn discours laa am boobu ba tey ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ba keroog may may sàngoo suuf ci ni ma taxaw laay taxaw man li may wax tout le temps nit yoruma yàlla suñu borom bi moo ma yor ku foog ne yaa yaa ma yor rek teel li nga yor ku foog na tamit ne boo ma menacé ay pli ay prison ak ay kenn xamul <laughs> dëgg yàlla euh, dafa naan Ousmane Sonko moo gën a xam kan mooy Assirou Diop Fall dof yi mu nekkal ci dof dof yi mu am ci prison ci dof yi mu am ci internet beeg yooyu ñoom xamuñu ma waaye Ousmane Sonko xam na bu baax kan mooy Assirou Diop Fall moom ak ñu ma àndal xam nañu kan mooy Aïssatou Diop Fall waaw te yéen tamit ñi may seetaan euh, ñi nga xam ne nii euh, dëgg moo nekk ci seen xol te euh, leneen nekku ca xam nañu bu baax ne man duma ko ñuy intimider duma ko ñuy menacer duma nit ku ragal te ku ñeme la may def laa assumer ko ñeme lu may def tax rek a tax ba foo mën a nekk benn kenn mënuma maa vaar ci àddina benn wax dong laa am ndax lu may wax lépp lu may wax lu ma gëm la neew ma li may wax vérité absolue la wala vérité universelle la waaye sama dëgg la Bougane Gueye dani euh, gis ngeen ko nii ci